alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullah bi toll ci bu nit faatoo bañ di ko waajal yi ñu ci gis nit ñi léegi sàggane ko lool lool daanaka ba e, néew bi ñuy gën a jox yitte sax xañ na boroom barke walla boroom alal day mel ni moom la ñuy gën a jox yitte léeg-léeg léeg nit ku nit koo xam ni amul luñ ko gisal ci àdduna faatu day feeñ ci lépp lépp bu ñuy génn néew ba dañuy feeñ buñ koy yóbbu da ciy feeñ bu ñu koy saraxal da ciy feeñ dama jàppoon ni bu dee xisee ñëw léegi néew yëpp lañu ñuy yamale waaye déedéet ñëpp mënut a xam nañ ko bu baax ñëpp mënut a yam ndax dina gis nit koo xam ne bi muy dund digganteem ak nit ñi ci yitte jum leen jox yëg gum leen yëg rafet ji ko lool bari ay soppe bari ab xame jikkoom ku ko dégg soppi ko mu faatu dëgg la eh, yépp du bokk ki nga xam ne melu noonu bëkk démb rek noo ngi woon ci dëj boo xam ni imaam Sidi Kandji sunu dijaay loola feeñ na ca waaye daa am loo xam ne laa wax ñëpp lañ ci war a yamale waaw ñépp lañ ci war a yamale ci misaal boo doon ne kilifa kii mel noonu lool nga bari la ci ñu mel noonu ñeneen ñi nga xam ne xañ na amuñu solo ni leen nit ñi gisee nga bari la leen waaye yow kilifa ñëpp yow daanaka ñëpp nga war a jox gëdd gu toll noonu yow dëkkandoo beet sa dëkkandoo bi nga xam ni dafa am macha allah ak dëkkandoo bu ñàkk bi ku ci faatu joxal yitte jóg ànd ci rob ba jullee ga dem jaali say dëkkandoo looy defe nga defe ko loolu laa ne wërta am xàjj ak seen wax dëgg yàlla te loolu dafa am nii jamono ji soppi ko nag jikko ji yàqu ci wàll yëpp ba lu ci nekk feeñ ni la woon woon na loola moonu dal léegi moo tax bu nu gaaw la dëpp seetlu bu baax ñiy wax ak ak yéen ñiy diglu ak ñu ci bari ah, dinañu am lu manqué ci waajal buñ leen di waajal buñ leen di jébbal seen borom yooyu dafa am solo tarap tarap ndax li tax mu bokk ci yiñ ko war a waajale rek dafa am solo alislaam bàyyi ko fi mag ñi fonkan ko lool waaye léegi eh, da gis bu ñuy denc ab néew démb rek sëñ law mi mu koy fàttali ñu ni diw faatu na ah ñu bari sax mën nañu ñëw de ci morgo bi buñ koy génn waaye buñ nee dañ ko yóbbu suñu dëkk de njàmbur leen ko yóbbu dañ ko yóbbu Bawol dañ ko yóbbu Tuubaa de ñu dañ ko yóbbu Fuuta ah am na ñoo xam ni seenu wér seenu jot mayu leen ñu dem waaye am na ñoo xam ni dara terewu leen a dem benn ay dëgër nañu daanaka ay ndaw lañu waaye daal ñoom demuñu te yiw wa leen faat yiw wa leen faat ci àndan ci rob boobee dem ñu yóbbu ko ñëwaat tey bu ñu xaman yiw woowu yow mal bu nit faatoo ba ñu laaj ko ni ko loo gën a bëgg mu ne xanaa delluwaat àdduna boo demee ci masali fekk ko ca sëñ Alaaji Maalik radiyallaahu anhu baytam woowu muy wax naa yow gis naa la nga mel ni ku fàtte te dee moom ah, rootuwaay la déeg la boo xam ni ñëpp a muy araaka nasital mawt wal mawtu mawridun waaw nu ne waxa nañ waaw bee ma jëkk wax suñ Tuubaa moo ko ci ci masaalikul jinaan wa arxabul asyaa lil amwaati ila dunya ma al aw kama xaat nit ki bu faatoo buñ ko laa jëloo gën a bëgg day wax ni xanaa dellu àdduna lu tax daa am lu mureeku kumpa gi dañ na ndekete lu baax nii la yombe ndekete àjjana nii la yombe ndekete ndekete ndekete yu bari yooyu waaye nag eh, su ma yëgoon ñun la gestul bi nga nekkee xale boo nee su ma yëgoon nga gestu ñun la ma nga ne lay dem nga naan anam lan kan ñu naa su ma yëgoon mooy wees na mbokk yi nañ dellu ginnaaw dellu ginnaaw dem ci rob boo xëy day mel ni ñàkk pexe moo la ci yóbbu yaa ngi ci sa whatsapp nit ñi denc yaa nga xool fa mu gën a sedd daanaka sax bu noppee bu ñuy joxe dog sax doo ko dégg ndax sori goo sori ndax yaa ngay dàkk ker ya maanaam daal yow mënoo ñàkk ñëw rek mënoo ñàkk ñëw rek waaw wax dëgg yàlla tuyaa ba moo ci ne mbokk yi àq la joo ameel ki nga dëkkal naam nit day nit dina ko poñe bu yomal xiyaamee ci àqi dëkkandoo jum ko xañ waaw koo xam ni bu ngeen dëkkantee ji ngay étage sax war nga ko yëgal waaw waa di nga kër yëgal ko ni ko maa ngi kii de damaa bëgg yëkkati sama kër gi étage moom da cee gën a kontaan rek bu iñaanul bu iñaanul donte nag bu bu njëkk dëkkandoo yi dañ daa yàkkalante dañ daa dimbalante léegi nag xañ na ñu waxee dañoo daje rek jënd parcelle moo leen fi dajale xañ ne lu ñu mën a yàkkalante yu mel noonu waaye dem lent bi ak fekkalent bi moom dafa wàññeeku feeñ ci yëpp maa mbokk mi doon na laaj mu tënkal ko lan mooy dëj ci sariya lan mooy ngént ci sariya lan mooy céet ci sariya waaye euh, ngëneel li ne ci jullee bokk ci mbooleem mi nga xëy ñooy jullee ay néew waxal na démb ki bokk ci ñuy jullee ba pare ànd ak néew bi ñu denc ko bu ñëwaat donte nag ñi nga xam ni ñooy yor euh, kàddu mbooloo mi ci bu ñu tegee néew bi buñ ko sangee ba noppi te nit ñi ba am ku taxaw bu mujj muy miir yooyut war nañ ko wàññi néew bi fokk am na ñu ko xam ñu ñu moom ñu def ak moom lu baree bari lépp nag boo ko bëggee wax fii ku ne ni ku bëgg a wax ñëwal wax wax dëgg yàlla loolu moom ñu ngi ci lor nit loolu moom du sariya loolu moom du sariya te bu fekkee aadalaat bokkul ci aada yi xëy mag ñi daal lañ ko def waaw ñu ñu téye néew bi daal yàgg na na ay benn benn di nit wax ay kàddu yi ci des buñ suulee ba noppi ah, mën nañoo dem ci kër ga mën nañ fa wax ba jant so mën nañ bés bu ne mën nañoo wax gis nga seede yooyu nekkul nii seede yi nañ ko seede bala ñoo suul néew bi déedéet même buñ ko suulee ba noppi ba dem kër gaar seede yooyu yépp mën naa amal njëriñ néew bi tax alislaam daan wax ni na ngeen di tuddal seen yu rafet ci seen néew yi kon lu dul lu rafet nga noppitaan ca waaye bul sos nag am na benn borom xam-xam bu nii néew bi bu faatoo boo koy seddeel boo fenee malaayika yi koy jël si du ñoom dégg ay fen waaw yooyu kon ju mat a wax la jël na ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mu wax ni e, e, am na doomam joo xam ne dafa faatu mu ni ah yow kuréy bu xool ma uh, nit ñi ba xam denc guñ ko nit ñi di ñëw par kenn di ñëw par kenn baag mu ni kuréy bu xool ma nit ñi ba xam nee na ma génn fekk nit ñi dajaloo nañu mu ñëw xibaar ko ko ah, mu ni ah hum arbaona mu ni ko ñoom day ma ñoomat ñeen fukki nit de mu ni ko waaw daal ni kon génn leen ko ndax kat dégg naa ci rasulullahi sallallahu alayhi mu wax ni amul benn jullit wu faatu boo xam ni ñeent fukki góor danañ ànd ca robam ba ñoo xam ni bokkaale ñu yàlla dara lu dul dina dinañ ràmm néew booba ci sunu borom ñeent fukki góor rek mu ni bu ñu ko matee ndaa yàlla dana ko ràmm ndax ñeent fukki góor yooyu ñeent fukki jullit yu yu bokkaalewul yàlla gis nga moo tax am na sama euh, suñ genn kilifa moom genn kilifa dafa wàccu liggéey ñu daal koy euh, bàyyi ba waxtu woo xam ni ñu néew dem daal koy denc niiwaayu mbooloo mi nag mu ni ah man de bëggewuma ko nii bëggewuma ko nii bu ma jummu sax defe naa sëñ xamsatu mu maam Cerno Birahim daa doon kilifa ga euh, wàcc num liggéey nag dama ko fàtte léegi nag moom bi ñu demee ba at yële bi mu wàccee liggéey euh, xam naa seen xel dem ci ni comme boo na lu mel noonu moom daal ñu koy denc ci guddi gi dañ ni nañu bàyyi ba onze ci yoor yoor nga xam ni keroog ku dem ca ba gis nga mbooloo moo xam ne jombul ci rob kere nga ko jëkk a gis ndax ñu bare bari ñëw nañu jóge fu sari ñii ñi jóge woon Tuuba ñi dëkk ko ci Daaru Muxti yi waaw ñu bare bare bari seeluñ sax fañ ko doon denc seel ndax mbooloo mu bari dëkkati kon bari waayu mbooloo mi mbir la ci mbir la ci waaw loolu kon yow na nga fexe ba bari ci bari looy fekk ab rob fekk jullee ba looy fekk fu ñuy fasab sëy gis nga fu ñuy robe fu ñuy fasab sëy yi ay jitaay yu am solo la yoo xam ne yu mat a mat a bàyyi xel la waaw gis nga Aïcha wax na ko nee na alayhi salaam nee na ma min mayitin yusalli alayhi yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa sufi'u fi illa sufi'u fi rawahu muslim dama ci kitaabu jinaas fekk yu bare bari yu ni nii mu benn jullit boo xam ni jullee na ko euh, xeet wii di jullit ñi ñenn ci ñoom jullee ko ñu mat téeméer lu dul ni ñoom day dinañ ko ràmmu fa sunu borom masan la ñuy wax ngir ramu ko la yàlla yi nangu loolu mooy ñoom dinañu ko ramu te mbokk yi mbooloom yi nii ñuy rammoo néew bi yamul xe am am na ñu yàlla digal ñuy ramm lépp yàlla la lépp yàlla la lépp yàlla la boo gisee mbokk yi naa ah, njiitu réew mi mooy responsable ndax moo fal ministère sàngam ah waaye bu defee ndamit moom mooy am mënoore moom njiitu réew ma bu boobaa ministre am yépp bu ñu jubalee ah mu am mënoore ku ci jubaluli moom ci boppam moo am responsabilité ndax moom moo la fal réew mi xamuñu la faluñu la koyit yàlla bu jaaralee ci ñeent fukki nit yi tax ñu ràmm Abdoulaye mii ah yàlla moo la jox ndigal ñu ràmm ko gis nga ko ñeent fukki góor yu dul bokkaale ak suñu borom ah, am na ñuy ràmm mooy ñu yàlla digal waaw gis nga kon wax na ko fu bari kon na na na na mbooloo mi denc néew bi di ko jullee nañ bari rek am na feneen fa ibnu abbas moo ko wax maa min rajulin muslimin yamuutu fa yaqumu ala janasati arbaun rajulin la yushrikuuna billahi cheyan ila ila safaahumullahu fii ak ma min mayitin yusalli alayhi ummatun min almuslimina yabluxuuna miatun kulluhum yusfauna lahu ila ila sufiu fii mooy addisi ma waxoon léegi rek waaw daana wax ni isa sallaytum ala almayiti faxlisu lahu duaa gis nga kon boobu Abu Dawud nekk na ko ak Ibnu Maaja nee na bu ngeen na Abu wax ni dégg naa ci sang bu tedd bi mu wax ni kat bu ngeen dee julleetee ab néew na ngeen selal ñaan ga ngeen koy ñaan bokki kon da ngay war a xam bu ñu jullee néew li ñuy wax ci arab boo ko mul wax ko wolof ay baat yu sell waaw yàlla jéggalal néew bi yàlla jéggalal néew bi sax baax na ginnaaw boo jàngee faatixa ba noppi waaw ñeent rakkaa lay doon kon ndeke day dagan ci néew ñu koy ñaanalal ñaan gu mën a doon guy tax ñu yërëm ko ñaan guy tax ñu jéggal ko waaw guy tax ñu far ay ñaawteefam waaw ñeent yi xeeti ñaan yooyu ñu ngi noonu lu tax nag léegi ñu àgg ba Eh, ab néew ñu rob ko ñu laa cee nañ dem jëfam rek moom moo koy jëriñ amul ñaan ëpp naa def ëpp naa def loolu moom lu bees la loolu te mi ngi bëgg yàgg Sénégal waaye lu bees la wax dëgg yàlla bokkul ak doxee nu mag ña xake nañ ko ñaanal de alis yaa ngi nii bari lool lool lool lool waaw jëlee nañ ci awfu ibnu malik Euh, radiallahu anhu mu wax ni salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala janazatin fa xafistu min duaihi wa huwa yaqul nee na yoon tamit jullee na benn néew <coughs> waaye mokkal naa ci ñaan yooyu mu doon ñaan ndax daa wax ni moom yonte bi allahuma ixfir lahu warhamhu wa aafihi waxfu anhu wakrim nuzulah wa wassi mudxilahu wa agsilhu bilmaai walhalji walbardi wa naqihi min alxataaya kama naqayta xawba al abyada min danasi wa abdilhu daaran xayran min daarih wa ahlan xayran min ahlih wa zawjan xayrun min zawjih wadxilhu ljannata wa aidhu min adaabi alqabri aw min adaabi nnaar lu mu ca teg nee na xaala xata tamay xata tamayanaytu an akuna ana dalika almayt nee ñaan gi dafa neex a neex ba man maa ngi noonu ngéejoo yàlla na kon ma nekk néew boobu maanaam yàlla kon ma faatu alayhi salaam ñëw di ma defal ñaan gi gis nga ko lii intervention la kii dugg na fu munta génn boppam ci côté yi ëpp ko doole lool nga ñëw di ko saraxu di ko saraxu kon nit dina defal moroom mi lu ko jariñ lépp suñu boroom lu jaarale ci sa diggante ak sa ak sa boroom ah, la cay jaarale alal sax foog mu am mu am ci kooko jaarale métier bi noonu waaye lépp yàlla la kon waxtu jot na rek ba ëllëg jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني